li nga xam ne mooy élection yi amatul dugg amatul génn li ci des bëreetul te njiital Pastef Ousmane Sonko moom jamono ji ak bokkam ba tey ji leeragul lu ni mel nag moo waral ndawi Sénégal wax waaye loolu Ousmane Sonko ci boppam dafa daa wax ñi nga xam ne ñooy patriote yi ñu ànd ak ñoom saa yu ne ma ngay wax ne moom ngëm yàlla rek moo ko dal di def li nga xam ne moo ne ci moom saa yu ne rek dafa ànd ak ngëm yàlla gu wér a wér moo tax lii lépp dal di koy dal waaye nag lii lépp suufe Sénégal rek moo ko ko ca dal di dugal ay kàddu Ousmane Sonko la waaye nag jamono ji ñuy wax ak yéen ba tey jii amagul benn candidature boo xam ne leer na nañ ñi waaye lépp rek dara du ci raw mbokk mi nga xam ne mooy sifur bës Media TV fii